L'Airly TV, la lumière du Coran et de la Sunna. Abonnez-vous. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له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 وهو على كل شيء قدير أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يسوات ننتي أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم مي <coughs> عندنا يننتي بي صلى الله عليه وآله وسلم درس بي نجلنا ñu ngi jeexale woon ci sahaaba bu baax bu ragal yàlla boo bii di Kaab ibn Malik nga xam ni li ko dal ci ay nattu lépp muñ na ko ngir yàlla fa ahsana allahu sabra yàlla rafetal muñam ak muñiinam waaye mu fay ko ajjanam ju kawe jooju moom ak i mbokki saxaabaam ak bépp jullit bu yàlla nangul yàlla nañu yàlla nangul saxaaba yi nag bokk na ci li taxoon ñu raw mooy dañoo yemoon ci li yonent bi indi yokkuñu wàññiwuñ loolee tax na ñoom ñëpp ñu dem àjjana kon ñun ñu bëggee lañu amoon il faut ñu def la ñu defoon maanaam diine li muy bañ yokk wala wàññi soo yokkee mu ëpp soo wàññee mu néew kon na yonent bi daan jaamoo yàlla ak sahabaam ba yàlla gërëm leen kon ñu suñu bëggee ngërëma mëndal yàlla noonee la jaar tey nag ñuy dal ci benn ponkal ci ponkali sahaaba yi muy koo xam ni soo ko tuddee ñépp danañ ko xam soo waxee jaar-jaaram ñu ne innahu saahibu sunna borom sunna la ku mën may ku mën a roy yonent bi moom ak abdullahi ibn mas'ud jàngat dundam walla wax ci dundam du yomb day jafe lan moo tax ni mu toll moo tax ci jaamu yàlla ci bëgg sunna ci roy yonante bi ci mat kilifa mbokk yi kooku saxaaba bu mag la ci xale la duggee ci lislaam ànd ak papaam gàddaay jóge Makka ñëw Madina kan mooy papaam ñaareelu xalifa yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy Umar ibn al-Khattab moy baye mu jël ko ci njambar jël ko ci jaamu yàlla jël ko ci lépp ki kan moy ustaazam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko formel boppam innahu abdullahi ibn umar abdullah ibn umar doy la sëkk ci taarif kan mooy sa baay umar ibn alxataab kan mooy sa roy waay yonent bi dund ak yonent bi yonent bi tagg ko ba génn àdduna sahaaba yu mag yépp tagg ko kooku mooy abdullah ibn umar wallahi tarikh buy wax ci mom du lambat ndax ku dundal fess yiw la ak roy kayam moy muhammad ibn abdullah rasulullah sallallahu alayhi wasallam mbok yi abdullah ibn umar la shakka ne waxtane dundam du yomb waaye dañuy doxalee rek ne luñ ci am jël hada al alam mandarga rëy wii échelle bu rëy bii wala nga ni monument bu mag bii nga xamante ni waxtaanam ak dundam mi ngi fees dell leer ci leeru xam-xam ak istiqaama njub ci sunna wa tawaadu ak suufeel boppam lool wal wari wal juud ak fegu ak dëddu àdduna waaye ak mën a jaamu yàlla ak mën a roy yonent bi lii lépp dajara ci abdullah allahu akbar moom daal da nga naan gaaña yóbbu nañu yiw wa ñun daal ci seenam xooñ la ñuy a lijjanti ndax danañ ca amee lu ñu sàqami boo ne Abdullah ibn Umar mu doy sëkk nga ni borom xam-xam bu toll ni moom ñu ne la waaw bokk na ci ñi ëpp xam-xam ci sahabatul kiram ñaareel ba jub lool ci sunna xamee nañ ko te léegi mu feeñ ci kanam mook abdullah ibn mas'ud ku leen dàq roy yonent bi amut ci sahaaba yi torox lu suufeel boppam mooy ñetteelu melokaanam ñeenteel bi fegu ci làmmiñam ci noppam ci ay loxoomi tànkam ak i mooy fegu lépp luy sabab bàkkaar abdullah ibnu umar daawu ko def allahu akbar juróomeelu melokaanam mooy juud tabe lu mu am joxe ko fi sabilillah ndax yëg na ni bis penc keroog mooy yawma la yanfau malu wala banuuna illa man ata allaha bi qalbin salim bis penc alal du jëriñ doom du jëriñ lu dul xol bu sell bu yiw nga ñëw ci wàllu ibaada mu nekk ci ab monument ba sahaba yépp xame woon ko jaamu yàlla di woor bëccëg ya di naafila guddi ya waaye ittibaa muy roy yonent bi ak iqtidaa ak taa ci moom la yam mbokk yi kookee mooy abdallah ibnu umar ibnu alxataab radiallahu anhu al imaamu alqudwa شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن القرشي نوني لكبرم سير أعلام النبلاء تعريفه من كيد عبد الله إمام لا nga ni falayam déedéet mu ne royukaay la nga ni falayam déedéet moom mooy seyxul islaam sëriñ la ci sëriñu islaam yi nga ni falayam déedéet dàkkantalam mooy abu abdurrahman al qurashi mbokk yi abdullah ibn umar dugg na ci fekk mu nekk xale bu ndaw ndaw la tuubee dugg ci islaam ginnaaw ga mu gàddaay ànd ak papaam عمر بن الخطاب نيو مدينة تدمي قداي بوبو مزيرو كون خالي لا بو نيو ني باموي قداي مزيرو موي مينور لا وون ميغي نيك انتر 10 ان 11 ان سي لا دوبو تي الاسلام الله اكبر شي غانيانغو نينا واستصغير يوم احد bi mu ñëwee Madina moo papaam fekk na xare Badar waaye xale la ndax xam nga ni jullit ñi benn at ñaari at la def xare Badar am comme moom amagul fukki at ak yu teg lu bari mënta dem xare waaye yonent bi tàmbale la ko responsabiliser tàmbale di ko jàngal nan la ñuy nekkee kilifa yonent bi su doon dem xare xale yu ndaw yi mel ni abdallah te bëgg diine bëgg lislaam ñoom lay dénk xale yu ndaw yi ca madina ne leen yéen yéenee garde xale yi bu kenn génn madina jox leen jaas yi ñu tàmbale gàddu jaas yi tàmbalee am responsabilité ci gàddu arme di contrôler seeni morom kon loolu dañ koy teel tàggat ci ne góor dafa war a nekk kilifa góor dafa war a ñeme joxe góor dafa war a ñeme kilifteef waaye góor day jël responsabilité xare Badr jàll xare Uhud jot mu am fukki at ak ñeent ndeysaan yëg nag ne moom war naa dem xare 14 ans allahu akbar bu doon kuy jàng nga ni CM2 lay war a def xale bu ndaw nekkut xale buy xëccoo ci télé yi seetaan làmb ji déedéet mbaa xale buy dem sortie mbaa xale bu yore portable yore wëg maanam di déglu musique léegi maa ngi romb fii léegi timis gaa ngi jot nit ñaa ngi julli ay xale yu góor ak yu jigéen baaxul yi ñu nga tëb di fecc rek ma ne allahu akbar yéen a mën a sànq dund dund gu jafe gii dund gu raar gii dund gi nga xamante ni mook dallu carax ñoo yem buy dagg du la tàggu ngay fecc nit ñi di la tàggu tàcc tàcc tib xale bu góor ak bu jigéen yow yaa ñàkk xalaat yaa ñàkk looy xalaat yaa wuuteeg Abdullah ibnu Umar Abdullah ibnu Umar nekkul di fecc ah rusoon na ko xamu ko woon sax 14 am ñëw posé wu ci kanamu yonent bi fekk Uhud mi ngi jot mu ñëw ne yonent bi dama bëgg a dem xare Uhud dama bëgg a dem yenent bi xool ko ne ko mënugoo dem xale nga rek mu jooy ne ko mun naa dem góor laa. allahu akbar góor laa mën naa dem ñun nag ñun moom xam nga ñun dañoo alko alko ba 14 ans yi léegi dañ leen di dugal ci écrit yi ak école école de lutte yi léegi école de lutte yi ñoo lutte daara yi daaneel leen waaw léegi ponkalam bër mu nekk ubbi na école waaw dégg kuy wax bi naan école de lutte nangam am ponkal ba jaaw nan maa daan bëre champion laa woon maa formé booy yi yaa bon ci loo leen formé woo leen ci julli formé woo leen ci jàng alquran formé woo leen ci jaamu yàlla nga leen di formé ci ngem bu def taatu neen di dóorante nga foog ñi def nga lu baax lépp lu nit di jàngale yawmal qiyaam dañ la koy fay lay lasi laa ilaha gayr yonente bi nee na lépp lu ñuy jàngale ci kaw suuf alquran a ci gën waaw lépp lu ñuy jàngale ci kaw suuf alquran a ci gën waaw sallallahu alayhi wa sallam yow jàngale woo dara lu dul bëre ñu lay tagg boo ñëwee di ndeysaan cam doo xam sax looy wax damay toog a ma ne ñii ñoo ñàkk lu ñu def dëgg dëgg dëgg jàngale wa dara dul bëre école de bëre yàlla nañ ci yàlla musul mbokk mu Abdullah ibn ko yonent bi ne da ngaa tuuti munoo dem mu am lu ko metti di jooy yonent bi woo mu ñëw bi mu ñëwee. mu ne ko xale yi Madina yow yaay seen kilifa yaa leen di garde yaay chef bi rek mu xam ne am na responsabilité garde jaateem nag commencé di ànd ak xale yi di fo mais xale yi képp ku bëgg a dépassé mu ne la eh del sil <laughs> commencé nekk responsable sallallahu akbar nga yorante bi ni mu mënee formé sallallahu alayhi wa sallam da lay teel a jàngal jamono nga teel a yëg yaay kan mbokk yi xare xandak diggante Badr ak Uhud at moo ci dox yéefar yi préparé na dañuy bett jullit ñi dalaat seen kaw dem def sa xaalu keroog yéefar yi dañoo waat bett jullit ñi ñu dégg ne yéefar yaa ngi ñëw ngir dal suñu kaw yonent bi woote li ñuy wax réunion extraordinaire sahaba yépp daje ñu ne lu ciy fexe ñu génn fekki leen mbaa ñu xaar la ñu ñëw ci dëkk bi waa madina xale yu ndaw yépp ne nañ génn parce que bu ñu fekkee fii xeexal ñun danañu yàq dëkk bi ñëpp la yonent bi lañ génn yonent bi keroog la réunion réunion bu tàng mook saxaaba yi yonent bi buggul xeex bi am parce que buggul mu am lor gu bari bu waa madina di ñàkk waaye sabab yépp ne ko dañuy dem dañuy xeex abdullah ibn umar radiallahu anhu ñëw takk bu dëgër yoro jaatam ne yonent bi damay dem keroog uhud mi ngi am ñaata quatorze ans ñu ne ko doo dem ñu teg ci at ñaata la war a am ans mu ne yonent bi damay dem am beneen saxaaba bu toll ni moom ñëw ne yonent bi damay dem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu leen di nattee mu ne leen yéen ñaar aca jaayante leen doole ma gis allahu akbar ñoom ñaar ñu def daaru xeex boo xamante ne du xeexu gaañante yonent bi gis ni ñoom ñaar ñëpp jàmbaar lañ munu leen a delloo mu ne leen kon mun ngeen a dem xare rek seen xol yi sedd xale yooyu lu leen di kontaanloo dem deewi moo leen di kontaanloo ñun lan moo ñuy kontaanloo Barça wala Barsax waaw ah, moom dem moo tax ndeysaan Sénégal manqué na xale yu góor léegi de la Joola ak Barça lekk na xale yu góor yu bari wallahi ladi la ilaha gayru li ci dee ci ay ndaw kenn xamut nu mu toll wallahu bihi alim mbokk yi Abdallah ibn Umar xare bi mu njëkk xeex ci islaam mooy xandak abdallah bokku na ci ñi jaayante ca garab ga min man bàyyi taxta shajara keroog bi yàllay gërëm sahaaba yi naan leen raqad radiyallahu anil muminin إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم كرد عبد الله بن عمر بقنا مولم مفك مبايعة شجرة رضوان يقدم من أجنة yonent bee jaayanteeg ñoom tàllal loxo ndey jooram ne Ousmane mooy sama loxo càmmoñ jaayante naa ñépp ñëw jaayante Abdullah ibn Umar bokk na ci mbokk Umar nee na radiyallahu anhu uridtu ala rasulillahi yawma Uhud wa ana ibnu arba ashara sana falam yajuzni وعرضت يوم الخندق وانا ابن خمس عشر سنة فاجازني نانا برزانتي ونا اهود ما ام كتوزا يننتي بباي وما مدم وايا خندق ما ام كيزا يننتي بماي مدم لولو امام بخاري جننو مبقي عبد الله بن عمر loko wo ci mbiru yalla mu ñew yalla ñu yalla melal ni sahaba yi julit lu koy yëkëti dafa wara nekk jaamu yalla jullit warul dox ci mooy yàlla saa boo doxee na fekk ni lu lay jox tuyaaba lay doon waaye jullit war naa ëppal boppam di dem ci loo xamante ni du ko amal benn njëriñ mbokk yi Abdullah ibn Umar yàlla may na ko kàttanu jihaad ndax kàttanu jihaad du doole de xuwatu imaan la ngëm gu dëgër moo koy may nit soo ko amee nekk jàmbaar waaye nag laa garwa abdullah war naa nekk jàmbaar kuy sa umar ibnul xataab war nekk jàmbaar mbokk yi abdullah nekk ak cam ci camut xeexkat yi jàmbaaru fàkk tëdd bokk ci fóore lislaam yi waaye mbokk yi abdullah nekk jihaadkat fekk xale bu ndaw la majeuragul parce que ba muy tàmbale jihaad boobu amagul 18 ans majeuragul mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa doon leen formé nag ci nan lañuy ñuy nekkee njiit nan la ñuy préparé Abdullah moo nettali nee yonent bi mu bañee ñu jëm daf ñoo responsabilisé dénkuñu suñuy moroomi gone yi ngir ñu sàmm leen ñu bañ a génn Madina ngir ñun ñu mën leen a jàpp waaye ñu mën leena a toppatoo mbokk yi ci yàlla abdullah ibnu umar xeex yi yépp yi islam xeex mën nga ni abdullah ibnu umar génn na ko ginnaaw bi mu demee xandak tardeetul benn xeex ñëw na ba ci xilaafa papaam maarakatu yarmuk abdullah ibnu umar dem na fa fatxe misra bi ñuy ubbi Égypte dem na fa fàtte Ifriqiya bi ñuy ubbi Afrique Abdullah ibn Umar ñëw na moo tax taarix bindal na ko ay kéemaan dem na Sham dem na Iraq dem na Basra dem na ba Perse yépp dem na nekk mujahid kon yemul woon ci borom xam-xam rek de waaye borom xam-xam la jàngkat la jàngalekat la woorkat la jaamukat yàlla la waaye jihaadkat la fi sabilillah mbokk yi Abdullah nan la xëree woon ci ut xam-xam ak topp Muhammad sallallahu alayhi wa waxoon naa léegi ne la ku bëgg yiw da ngay roy yonent bi yonent bi deful dara lu ndaw li mu def lépp rëy lépp luñ la xeetloo ci li yonent bi def boo ko bàyyee rek def nga musiba lépp luñ la tuutilloo ci li yonent bi def munoo def lu gën loola jaamu yàlla népp nu ñuy jaamu yàlla xataa nu ñuy solee yére même ni ñuy solee dàll même ni ñuy duggee ci wanag lépp yonent bi jàngal nañu ko bàyyiwul dara dara dara dara mbokk yi jaamu yàlla du rëy ba gën a rëy jaamu yàlla yonent bi mënta nekk wala mun naa am yàlla li mu wax yonent bi waabud rabbaka xatta yatiyaka al yaqin yow muhammad ni ngay def neex na ma jaamu ci yàlla ba dee jot yonent bi jaamu ci yàlla ba dee jot tey ñu indi yeneen yu bees yokk ko ci diine ji soo nee lii bokk ci addunay bëgg a tukki soo nee lii yonent bi xamu ko ñu ne mi ngi saaga mag ñi soo yemee ci li yonent bi indi ñu ne xale yi ibaadu yi moom daal da ngay dem ba doo xam noo def boo lay yemee ci li yonent bi indi rek da ngay soof nit ñi boo rombee li yonent bi indi nga soof yàlla kon nag ban moo ci soof nit ñee gën soof yàlla ndax nit ñi amuñ sa fay yàlla mi lay rey di la soxla te buñ la suulee nga ne fa mu soxlaal la boppam moom dong nga jar jaam mbokk yi Abdullah ibn Umar bokk na ci ñu dàqoon a roy yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk yi ci yàlla sunna kuy roy sunna na jàpp ci ñu sahaaba yi meloon abdullah umar su nekkee ci dëkk bi day roy yonent bi su génnee day roy yonent bi ay kàddoom roy yonent bi la léppam roy yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam jëlee nañ ci bu mag bi muy naafi taalibe bi gën a ci ñi topp abdullah ibn umar nafi lañ koy wax nafi mi jaam la woon ci abdallah waaye abdallah jàppewu ko won jam xarit la ko jàppe won motax tax néew ne hadith buñ lay nekkal ci abdullah ibn umar ludul nafi mom mo koy rapporter mom mo la koy jox nafi neena na ابن عمر رضي الله عنه يصفر لحيته nee na abdullah ibnu umar dafa daan fuddal sikkimam daf ko daan fuddal nee na zeyd ibnu aslam nettali na mais nee na ibnu umar kaana yusaffiru xatta yamla siyaabahu minha fa qiila lahu tusbigu bisufra qaala inni raaytu rasula allahi yusbigu biha xadis boobu kan moo ko soloo ki ko solo moom mooy ibn saad abdul qadir ibn arnaout nee na xadis boobu wér na nee na abdullah ibn umar da doon fuddan sikki ba yëreem yi ci boppam sax cuubu bu ñu ko ne waaw yow de da ngay sa sikkim bi mu ne damaa gis yonent bi di ko def moo tax ma di ko def mbokk yi jëlee nañ ci malik am na ñu ko nettali ne ko abdullah ibn umar كان يكبأ أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآثاره وحاله ويهتم به حتى كان قد خيف على عقله من اهتمامه بذلك نحن بلاد عمر دفا دان روي ميرو يورنتي بي ليبم اي جيختالام دخينم وخينم با نيت ني جابي كو دوخ مو دم با تياغ ني كي با موي دولي مو دوخ ndax ko xamni yonente bi mus naa ñëw ci kaaba gi salallahu alehi wa sallam ndiggam xasan moom yonente bi ndiggam di xasan xanaa su ko neexoon mu woo sahaaba yi ne wokkal leen ma fii waay comme ni ko gaa yi defee ndeysaan defu ko woowul benn taalibe ne ko wokkal ma moom yonente bi moo ñëw wér ndiggam lu pedd la ci kaaba gi di wokkatu abdulah bni umar gis ko benn bis abdulah bni umar ñëw màkka bi mu ñëwee màkka nag fàttaliku ne yonent bi wokkoon na ndiggam ci kaaba gi waaye place bi ko yonent bi defee xamatu ko allahu akbar yonent bi wokku na ndiggam ci kaaba gi pourtant abdallah am nay loxo war na mën a wokku ndiggam waaye comme roy yonent bi la borom bi subhanahu wa taala nee na فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم نانا مويت لين دي ووتك محمد كيفك ووتك يرنتبي ديغا أم بغلو أدنا أم بغلو الآخرة أم نجفي سيري كيفك ووتك يرنتبي ديغا أم تشاني أدنا أم بغلو الآخرة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم عشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتت آياتنا فنسيتها فنسيتها وكذلك اليوم تنسى برم بنينا غرغر لليل képp ku wuuteeg sama alquran wuuteeg sama yonent sa dund day metti day jaxasoo day jafe fii ci àdduna boo dee yowmal qiyam booy dekki da ngay gumba soo gumbaa nag nga ni yàlla lan moo tax nga gumba mu ne sama aaya ñëwoon na yonent bi ñëwoon na waxoon nañ la nga tëx gumba lu bañ moo tax ñu fàtte la tey yàlla nañ ci yàlla musal wa kadalika al yawma tunsa mbokk yi Abdullah ibn Umar ñëw gis yonent bi wokkoon ndiggam ci kaaba gi xamul fu mu koy wokk mu ñëw ba ci buntu kaaba gi teg ndiggam ci catu bunt bi wéeru di wokkatu di dem gaa yi di ko xol <laughs> allahu akbar tat tat tat lii de ku ko defoon fii ñu ne ndeysaan dof na nag ibaadu ba dof na ibaadu ba dof na lan lay def xamul fan la ndiggu yonent bi toll mu teg ndigg li di wokku di dem di wokk ba première setu kaaba gi jeex mu topp bi ci def xam nga kaaba gi ni mu yaatoo ni mu kaare mu top lépp wokkatu gi ba mu jeex naafi ne ko waa cheikh bi lii lan moo tax nga def ko mu ne hakaza raaytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam hakka bahrahu falam arahu summa ahaktu bahri la ilaha illa allah dama gisoon yonent bi wokkatu ci kaaba gi xaw fu mu ko def xaw ko ma def lépp ndax ma daje fi ndiggam tolloon sallallahu alayhi wa sallam gaayaangoɓe wa fi dalika falyatanafasi almutanafisun mbokk yi abdullah ibni umar bëgg sunna taxoon nañu foog ñu dana dof waaye déedéet kenn du roy yonent bi dof ndax yonent bi dofut borom bi nee na wa ma saahibukum bi majnun muhammad sare naag dof du ko dof de naafi nee na law nazarta ila ibni umara ida ittabaha rasul allah لقلت هذا مجنون majnun بو دوندو نك عبد الله بن عمر nga gis ni muy roye yonent bi di nga ne ki ndeke dof na kii daa dof lolou kan ñëw na ci khuliyatu awliya batay jele jëlee nañ ci naafi nee kana ibn ibnu umar yatbau athar rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi kulli makan fi kulli makan salla fihi حتى إن النبي نزل تحت شجرة فكان ابن عمر يتعاهد تلك الشجرة فيصب في أصلها الماء لكي لا تيبة لأن ابن عمر نمو بجيون رأي ينتبه لأن ينتبه صلى الله عليه وسلم بدخون بجتات غرف كيف بارو فنوبلو ولا مدق فخب لأن أبلا ابن عمر دي جل نوح يو روسة غرف جي حمد الله مغيرة دي بجي روسة دي بجي خامة غرف دي فربو ينتبه دفع مو نيو دفل ينتبه دفع, دفع, دفع këram amoon na benn garab garabu tàndarma boo xam ni boo ko rombee ay presque cent cent cinquante mètres benn garab tàmbaram ma nga fa yonent bi sallallahu alayhi wasallam daa mos gunge gan ba foofu mu taxaw tee ci caru garab bi nii waxtaan ak gan gi ba caag gan gi dem Abdullah ibn Umar dëpp keroog ku ko seet seeti bu la gungee ba foofu day tee ci caru garab gi doog a tàggal ko yow <laughs> allahu akbar ñii ñoo mën a roy yonent bi saxaaba yaa ngi gaa yu baax yaa ngi nii nit ñaa nga ne mbokk yi abdullah ibni umar radiyallahu anhu benn bis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taxaw na ci masjid bi jigéen ñi bari yonent bi ne law tarakna hada al baaba linnisa yonent bi di xool ba jaag ma ne bunt bi cey suñ ko bàyyi lool jigéen ñi rek di fi jaar nee na keroog ba ko abdullah ibni umar déggee nee na falam yadxul minhu ibnu umar hatta maata nee na depuis mu dégg yonent bi ne bunt bi suñ ko bàyyiloon jigéen ñi rek dina baax yonent bi newul rek de dafa dafa mébét xam ngeen mébét mooy suñ ko bàyyiloon jigéen ñi tekkiwul ni góor mënu see jaar mais yonent bi comme nee na buñ ko bàyyiloon jigéen ñi rek dina baax Abdullah ibn Umar keroog la araamal bunt boobu jaarata ca ba ni mu génne àdduna allahu akbar عاصم ابن محمد العمري Amri jëlee nee na maa samitu ibnu umara zakara annabiya sallallahu alayhi wa sallam illa baka nee bi yonent bi gaañoon nee na déggatuñu ibnu umar tudd yonent bi lu dul daa jooy jooy ba sëkk mi tooy da koo xamoon nag dund ak làmp bu mel ni yonent bi kooku boo ko ñàkkee yaa Aysa nee na guddi ba yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu gaañoo madina daa lëndëm comme guddi madina daa lëndëm comme guddi leer wu mel ni yonent bi fu mu jóge mu lëndëm moo tax Abdullah ibnu Umar su tuddee yonent bi day jooy ba ay yéreem tooy ba mujj gi sax dootul mën a wax bal kaana radiallahu anhu yaxrusu kull alxirs ala an laa yazida kalimatan aw yanqusa kalima min xadisi rasulillah Abdullah ibnu Umar góorgóorlu na ba du yokk benn baat ci waxu yonent bi du wàññi benn baat ci waxu yonent bi ñun nag dangay ngay wax xadis ba ci yàgg ne noo xam naa ni ma ko gisee ni ma ko yaakaare mbokk yi yonent bi lu mu xës ba wax loo ciy yokk loo ciy wàññi bu dee wax moo la ko dàq bu dee xam-xam moo la ko ëppale yàlla day wax ak moom di ko sant kon jarul nga koy yokkal waxal ko li mu wax te yem fa loolu mooy dëgg lépp lu yonent bi defut ci jaamu yàlla ku ko def yaa ngi ëppal abu jaafar al baqir nee na kaana ibnu umara ida sami'a min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam hadisan laa yazidu wala yanqus nee na bu déggee wax ci yonante bi du ko yokk waaye du ko wàññi Aïcha radiallahu anha tagg na ibnu Umar yaa Aïcha nee na maa raaytu ahadan alzama lil amri l awal min ibnu Umar nee na musumaa gis ku gën a royee mbir mu njëkk ma ci ibnu Umar nee na Abdullah ibnu Umar ni muy royee yonent bi maanaam démb li yonent bi doon def bi yonent bi gaañoo nee na Abdullah rek laa séen mu mel noonu waaw ah, kii nañ ko ah yokkul wàññiwul mbokk yi Abdullah Umar wa hubbuhu lillahi jalla wa ala jullit day bëgg yàlla jullit day bëgg yàlla jullit bu bëggee yàlla bëgg diine yàlla bëgg jaamu yàlla bëgg jaamu yàlla yi loolu baat bu mat bàyyi xel la jullit day bëgg yàlla bëgg diine yàlla bëgg jaamu yàlla bëgg jaamu yàlla yi jullit ñi dañu leen war a bëgg innama almuminuuna ixwa jullit ñi borom bi nee na ay mbokk lañ kon sa mbokk jullit da koy yéene li nga sa bopp bul def nit ñi bay def sa bopp xar yëgal nit ñi lu ëpp na nga yëgee sa bopp ndax yonent bi daa yëgoon nit ñi yonent musta tëju jikko bu doy waar la tey nag xew na xew na ci borom xam-xam yi xew na ci borom alal yi léegi tëju rek soo dee borom xam-xam heure sàngam bii lay recevoir nit ñi heure nangam heure nangam aw ma jot pourtant yonent bi da melul woon noonu daawul tëj buntam amul woon garde corps amul woon comptabilité amul woon ku koy calculer yooyu yëpp yonent bi xamoon na ni bu ci nekk moo ko war a def ngir yàlla fayal ko boppam tey nag nga am koo xam ni moo taxawu say mbir booy joxe xaalis moo lay joxeel booy maye moo lay mayel mbokk yi juróom-ñaar ñi yàlla tagg ne yowmal qiyaam danañu am ker keroog ba ker jafee bokk na ci rajulun tasaddaqa hatta la taalamu shimaaluhu ma tunfiqu yaminu nee ku saraxe loxo càmmoñam yëgul li ndeyjooram def léegi nag boo jëlee benn waay loo war a saraxe moo koy jël moo lay joxeel di ko bind tey saraxe nga deux suba saraxe nga trois muy bind bu weer bi demee mu ñëw noté vérifier yëpp comptabilité calculé ne weer wi yëpp def nga fii sabilillah trente millions nga commencé naan sey man li ma def bëri de Iblis nag moo lay tàmbalee jay naan la yow non li nga li nga def bëri na trente millions Dakar kenn joxewu ko nga tàmbal nag man li may joxe man kenn du ko joxe man fii sabilillah Iblis dribble la bu yàgg ak mën a dut bu doon footballeur joueur bu mën a dribble la dalay nax bu jaaree fii baaxul mu jaar fee bu nit ñëwee dix la soxlaam nee na dama nga ne ko demal ci Moodu Moodu jox ko foofu cinq mille Moodu génne cinq mille bind pourtant yow sa borom dafa ne woon sa càmmoñ warul yëg lu sa ndeyjoor joxe waaw lu Moodu yëg ndax càmmoñ yëgu ko moo tax yonent bi daawul bàyyi kenn mu joxe mooy joxeel boppam allahu akbar gaa yi jafe roy sunna sunna yomb te roy de yonent bi sallallahu alayhi wa xale bu ndaw dana ñëw déranger ko xale bi ñëw ne ko dama laa soxla mu ñëw sëgg ne ko loo may doy xale bi jàpp ci loxoom génn ak moom yonente bi ànd ak moom ba ci biti na ko nangam nang lool <laughs> ay da ay suñu xalif général yi koo ci jàppoon ci loxoom boo ma di gars yi buñ la tóojee ba ci kaw <laughs> buñ la bàyyee bu ma nga am problème la ila par gaa gaa yi royuñ yonente bi allahu akbar royuñ ko jigéen jigéen même jaam jigéen day ñëw ci yonente bi téye ci loxoom ne ko dama soxla soxla xam nga yonent bi nuyu jigéen mais jaam jigéen dafa xaw a am attey góor yonent bi buggul toroxal bu jigéen day ñëw tey ci loxoom ne ko dama laa soxla yonent bi ñëw bu dee ñun waa yow jaam bi o maccuɗo a yow o oh, xanna ko oh, kuɗaaɗo o oh, ni ko gaa yi waxee subhanallah jaamu yàlla yi boo leen tuutilee yaatu yi nan ngay def te bëri na koo tuutil moo la gën fa yàlla rubba abdin أشأش أغبر لو أقسم على الله لأبر برمي كفشير تلم نيك صلو نيك ألال بنا يالا دفل يالا دفل خموكو خموكو جيل نيب نغا رسبكت لين ديت بو نيوي سوخنا لي سيرتي لا اوبير كو سخار كانام واي لا لي نيت نيوغا فاغي داي نيانتي كوما سا نو لوماي دوي اند بوغو رك مون لو داما لو لو اوما جوت سبحان الله جولي بي اوبي خار انما المؤمنون إخوة فأصله بين أخويكم كن بقي عبد الله بن عمر بقون يالا لول خليد العصري دون وخني يا إخوتا هل منكم من أحد لا يحب أن يلقى حبيبه ألا فأحبوا ربكم عز وجل وسيروا إليه سيرا جميلا لا مسعدا ولا مميلا nee na ay yéen nit ñi xanaa amul kenn ci yéen ku bëggul daje xaritam ñu ne ko ah kay nit kay day bëgg jamono bu mu noo nekk gis xaritam ànd ak moom mu ne kon bëgg leen seen borom su ngeen bëggee seen borom ngeen daw jëm ci moom ci doxin wu rafet ngeen xam ne nag yéegukaay ak wàccuwaay ak jéngukaay yépp moytu leen ko luy yéeg jëm ci borom bi demal waaye bul jàng ci yoonu yàlla ihdina siraatal mustaqim ay ci yàlla nit baax ñi day dañu bëgg borom bi subhanahu soo bëggee yàlla ku am jafe-jafe nga jàppale ko génn woote fi sabilillah ñooñu seen xol yi daan ubbeeku dañu daan am yëg-yëgug leer abdullah ibni umar su ñëwoon ba ci ci màkka ak marwa لن يوقف اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ويحب رسلك ويحب عبادك الصالحين اللهم حببني اليك والى ملائكتك والى رسلك والى عبادك الصالحين ليلا دنيا يو يالا دسم مامو بغ لا بغ ساي ملائكه يرنت بغ سا جام ني yàlla bëggloo ma malaaka yi waaye yàlla day bëggloo ma say yonent waaye bëggloo ma sa jaam ñu baax yi kii ñaan lii yaakaar naa ni du bañ kenn kon day bëgg ñëpp mbokk yi Abdullah ibn Umar benn gént nettali ko yaay ab sax gént boobu mooy dafa gént malaaka yi yóbbu ko safara mu gis nag ñoo xam ne dañ leen di lakk Abdullah ibn Umar nee na dama doon nelaw ci jàkka ji bi may nelaw ma gént ñaari malaaka jël ma yóbbu ma safara bi ma ñëwee safara nag ma séen fa ñu ñuy wëlbati ñu mel ni ay cat bi ma leen séenee ba jàgg am ay nit yoo xamante ni ñu nga foofu bi ñu fa nekkee mbugal mi metti rek ma tiit ni a'udhu billahi minan naar yàlla musal ma ci safara yàlla musal ma ci safara mu nettali loolu magam Hafsa bi mu ko waxee Hafsa bint Umar Hafsa ñëw wax ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi ne nicma rajul abdullah law kaana yusalli billayl yonente bi naa Abdullah de ku baax la cey bu doon naafi la guddi rek Hafsa daw wax ko ne ko yonente bi tagg na la tey nee na ku baax nga cey boo doon naafi la guddi depuis keroog Abdullah ibn Umar dégg baat bii ba ba muy génn àdduna musul bàyyi naafila guddi musu ko bàyyi benn léegi nag abdullah ibn umar comme yonent bi moo ni innahu rajulun faalix fala mbaax yem ku yonent bi ne ku baax nga kon ku baax nga mbokk yi abdullah ibn umar ñu ñëw ci jaamu yàllaam dafa mel ni waxtu wi jege na daa ah? wala jot na ah def na mbokk yi Abdullah ibn Umar ndax mën nañ koo misaal te du ñu tudd jaamu yàlla déedéet kon nañu bàyyi ñu nettali ñu laaj nañu naafiq ay nit ñoo ko laaj ne ko doo ñu nettali jaamu yàlla Abdullah ibn Umar ci këram nan la doon jaamoo yàlla naafiq ne leen déedéet laa tutiquunahu kooku ni mu doon jaamoo yàlla jaruñu leen ko am munu leen ko wala ci saxaaba yi mu ne leen Abdullah ibn Umar li mu doon jaamoo yàlla kenn ci yéen munu ko ñun nag kon kon ñun waxuñ ñu mbokk yi nee na Abdullah ibn Umar ni mu daan doxalee mooy al li kulli salaat wal mushaf fi ma baynahuma nee na julli bu nekk daf koy jàppal diggante julleeg moroom ma mu téye kaamil bi jàngal Quran maanaam bu jàppoo julli fajar ba pare mu ngi ci kaamilam di jàng rek di jàng ba tisbaar jot mu jàpp dem julli su jullee ba pare ubbiwaat kaamil bi di jàng ba tàkkusaan jot mu jàpp dem julli su paree tàkkusaan mu waat téere bi di jàng ba timis jot mu jàpp julli su ko defee timis continué noonu jàng alxuraan bagee jàpp julli kii ndax loolu mën nañ ko ñun moo tax mu ne leen yuu kii ni mu doon jaamoo yàlla mënu leen ko nee na Abdullah ibn Umar dafa tegoon ndox ci wetam waxtu wu nekk da koy jàppal pourtant jàppam du toj waaye dafa yëg ni yeesal njàpp lu baax la jamono bu nekk muy jàpp nee na Abdullah ibn Umar daawul tëdd ci lal day julli julli julli julli ba sonn jóg banku ci lal bi tuuti jóg ne naafe ndax fajar jot na naafe ne ko fajar jotagul mu jàppuwaat kàbbaraat di julliwaat noonu lay nekkaatee nekkaat nekkaat ba xool ne naa fi xoolal ma waay ndax bët set na naa fi xool bët setul mu jàppuwaat ko nee na dina def juróomi yoon ci guddi gi kooku ndax dina nelaw allahu akbar ñii ay robot lañ ñoo jaamu ko ci yàlla yi mag juróomi yoon ci guddi gi dana jàpp di julli te julli bu guddi nekk nag moo gën a gudd morom ma nee na nag bu ko nee nag njël jot na bët set na nee na ibnu umar nag toog nag léegi nag commencé di tuub di jéggalu yàlla di tuub di jéggalu yàlla ba ñu nodd fajar mu dem julli fajar la ilaha illa allah nee na abdullah ibni umar loolu daawu ko bàyyi bu fekkee nag mi ngi ci madina bu tukkiwul day woor su tukkee lay dox kon saa bu nekkee ci dëkk bi rek bis bu ne day woor bis bu ne da koy woor su tukkee rek lay bàyyi koor kii ndax mën nañoo ko tëg moom jaamu yàlla ci diggante julli ak woor ak jàng alquran nee na Abdullah ibn Umar xawoon naa sax ñàkk a dog ci bëccëg nee na na ba ni kii dog day woo continuer fekk am na bés yu mu dul woor mbokk yi naafi ba tey nee na Abdullah ibn Umar kaana ida fatathu lishaau fi jamaatin axya leylatahu nee na bu tardee julli gee ci mbooloo nee na da koy fay guddi gi yëpp koy naafil ba bët nee na la koy tardé moo koy mett ndeysaan ni aslam doon def di jooy aslam dafa xëy di jooy di jooy di jooy di jooy ba Muhammad ibn Bakkaar ñu daw wooyu ko ay taabiin laa la yox de ñu daw woo ko soxnaam woo ko daw ni Muhammad ibn Bakkaar kaay sa xarit bi dama dee de sa xarit bee ngi jooy di xëq rek mu mel ni ku doomam dee mbaa ku reyal nee na Bakkaar bi mu ñëwee di ko laaj ne ko lan la mu ne ko dara mun ne ko déedéet di nga ma nettali mag di jooy bay xëqat xëqat yu met di mu ne ko démb dama naafilawul guddi looloo tax may jooy de ñun xam naa ne ñun waratu ñoo defee rangoñ ñun moom nga xamante ni vingt deux heures la ñuy banku ci lal wi ba ki ci jàmbaar a jàmbaar ñaar rakka fajar dem jàkka ñooñu moom ñoom jamono mais guddi gi naafi la ko moom waaw kooku moom am jot la naafi ba tey nee abdullah ibn umar da daan dundal guddi yi ci jaamu yàlla ci julli mbokk yi ci yàlla dars bi dars gënu koo rëy lan la ñu njëkk jàngatee ci dars bi mooy ragal yàlla bëgg sunna mën a jaamu yàlla ci julleeg woor ak jàng alquran kii buñ ko ci royee danañ am dars bu mag a mag ndax doomu aadama il faut mu am lu mu def ndax abdullah ibn umar rek nee na rek umar ibn xattaab mooy sama baay ndax nee na bi moo ma yar ñun nag ndeysaan da ngay am benn sant rek dootoo jaamu yàlla non diwéy sama maam man dama diwéy sama maam waaw dangay gis soo xam ne day toog di naan sàngara jox ma non diwéy sama maam man nanga moom daal mu mel ni sama maam ay diw kon dem nga àjjana ba pare pourtant Abdullah ibn Umar li muy jege jege yonent bi li muy nekk nekk doomu Umar ibn Xattaab noonu lay xëccoog ñoom ci jaamu yàlla lu ñu ko def da def lu mel noonu mbokk yi ci ndeke jaamu yàlla ñun ñëpp dañ cee war a góorgóorlu moo tax yëg na ni borom bi subhanahu wa taala nee na وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا برن بنينا دوم آدم بنك يوم القيام سجف دنتي تكتف دوق gis nga gaay yi jaay xaru tëbëski ni ñuy yowmal qiyaam noonu la kenn ku nekk la nga jëf dañ koy bind say fëy takkal la ko ci sa doq na ngay dox ak moom alzamnaahu taa'irahu fi unuqi nee na nag li ci gën a doy waar kenn ku nekk yaay liir say dossier iqra kitaabak kafa bi nafsika al-yawma hasiba moo tax benn borom xam-xam nee na góorgóorlu leen ba diggante ñaari iqra yi bu leen fi def lu jar ngeen jàng lu baaxul bu njëkk mooy iqra bismi rabbika alladi xalaq beneen bi ci boobu ci àdduna la allaaxira mooy iqra kitaabak su fekkee am nga taw yi topp yàlla yawmal qiyaam bu ñu la ne jàng sa téere nga jàng ko da kontaan ndax kafa bi daf sikal yawma alayka hasiba kenn du la audité yow yaay audité sa bopp borom bi nee na képp ku jub boppam lay jubal waaye képp ku réer boppam lay sànq du ñu jël bàkkaaru kenn wéer ko kenn kenn kenn yàlla nee na du ma mbugal kenn lu dul ma yebal yonent mu ñëw wax ak yéen فإذا نفخ في الصور فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون بسنج بنيوالي بفتبي أمول داي أمول باي أمول مك أمول خارج كن دوخم كن نيت دنا سين داو نيت دنا سين داو نيت دنا سين داو نيت دنا سين داو جبر دنا سين داو كون جامولين يالا نيلين جامو يالا كروك لان موي جيرين كروك جامو يالا am jàmm faman saqurat mawazinuhu fa ulaika humu lmuflixuun ñi seen blanc yi diis ñooy dem àjjana yàlla nañ ci yàlla boole wa man xaffat mawazinuhu fa ulaika alladina xasiru anfusahum fi jahannama xaalidun ñi nga xamante ne seen blanc dafa oyof perte nañ jahannama lañ jëm yàlla ci yàlla musal kon incha allah ñu tënk foofu dars bi ba mardi bi di ñëw ñu àggale dund abdullah ibni umar radiallahu anhu wa arda kii nodd na ñëw nodd incha allah salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh